waaw salam, ah, euh, Fall maa ngi ziar bu baax di nuyu waa Ovision ak tous les téléspectateurs di naan bisimila ci suñu euh, exposition Adam 2023 bi 14e édition bi ci bergerie Selili ak bergerie moderne la ñawara parce que je suis venu quand même avec mon cousin Youssouf donc tout le temps manam ñu ñooy do ensemble waaw effectivement Fall comme nous ko waxé hein, attraction bi ma ko doon xaar parce que xar yi bon enjeu bi bi nga njëkk a tudd je pense que ñëpp xam nañ ko Lam Tooro tamit je pense mooy di bi mu ba léegi gars yi éleveurs ñu ngi suivre Tokyo aussi wax dëgg moom moo nekk attraction foire bi nag Tokyo moom wax dëgg yàlla mom lañuy def mention spéciale parce que quand il a 26 mois mom mo ñëw da wax dëgg yàlla def une très grande surprise ci concours concours mâle adulte wa Tokyo dama jëloon sama meilleur mâle moy Chifa Chifa di dom ci mbarik donc c'est un magistrat ma boole ak sama meilleure femme moy Kaya Tokyo juddu donc Tokyo seex la donc bi mu juddoo nak après ci la ko jox sama cousin Youssouf Thiel quoi. wa comme comme mag rek mag ji fu mu toll xam nga dama jël sama meilleur femelle dama am damay képp ko xam selli xam ne day selli day liggéey ak ñaari mal benn mâle bi Asapik la benen mâle bi Chifa la donc dama jël Kaya ma teg ko ci Chifa. Tokyo judd ma jëlaat kaya ma teg ko ci aspic lam toro judu donc Tokyo ak lam toro ñoom ñaan ñoo bokk yaay moy kaya donc ñom ñaar ñëpp aussi wax deug yalla c'est des vraiment am nañu avenir quoi té éleveur ñu ngi leen xaar bu baax a baax a baax macha allah. waaw anam bi wax deug yàlla organisation bi ça c'est très bien passé hein, wax deug yàlla ba ci concours yi sax parce que ils ont fait une innovation donc si ñi natt xari je pense que pratiquement éleveur dañu dañuy jël un peu de recul pour bañ éviter ay ay ay ay polémique donc lool c'est une innovation quoi mais lepp lo gis aussi je pense il y a des il y a des choses à refaire ñun éleveurs yi bon am nañu ay xalaat ci par rapport ak natt bi ni ñu nattee xar yi mais yooyu dañuy bàyyi ba après foire bi suñ suñ assemblée générale yi on en profite ñu waxtaanee ko foofu quoi non public moom depuis foire bi ça fait 10 jours je pense tey mooy neuvième jour bi depuis le premier jour ba léegi chaque jour y a du monde je pense c'est une réussite parce que Adam quand même c'est la plus grande association de l'élevage au Sénégal moo tax tey jii tam saa ñu organisé pratiquement ñi ñi di ñëw en masse quoi waaw jeune bi déjà laamtool dugal naa ko donc il faisait partie des 10 premiers qualifiés donc trois premiers yi génn dem moom bokk ci mais bon mu ngi ci dix premiers donc déjà loolu c'est c'est une chose c'est bien parce que ñi mu doon jongantal ñu ci bëri ñoko mak bon deuxième kii bi mooy Tokyo déjà mo jël gum deuxième ci mal adulte yi parce que il n'a que 26 mois mo ci gëna nek xalé té mom mo moo nee la moom c'est la révélation de la foire képp koy wax so xolé ci réseaux sociaux yépp waxu Tokyo lañuy wax donc wax dëgg Yalla donc mu ngi ci deuxième place pour l'instant té am nañ ci yaakaar quand même que dina am consécration incha waa waaw di nuyu éleveurs yëpp di nuy waa suñu mbokk téléspectateur waa Ovision di la remercier aussi particulièrement ci effort yi ngeen def ci visibilité xar yi donc di leen nuyu bu baax di leen jaajëf ba beneen incha allah